tax yéen waa ah, ni leen teeñ baa ngi yan bi dikkakul li ñu bëgg rek mooy na ñëpp àndandoo jàppale président Macky Sall ci suñu ginnaaw ministre Abdoulaye Diouf a ah, lu tey ni tey ñu mu ñëw inauguré stade municipal boo xamante ni fii lañ ko war a def pour la jeunesse ñu wax mu pare ñëw teg pose premier pierre aussi bu euh, hôtel de ville bi monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm vraiment population Tassette yëpp kontaan nañu. di leen wax nag yéen population Tassette ba ma fi ñëwee di politique man président Macky Sall moo ni ma woon dama jàppale ma Tassette yaakaar naa ni tey kontaan ngeen ci ànd ak président Macky Sall. ba may ñëw dama leen woon man privé laa nekk. ñun xamuñu sax li politique mais j'ai vu un homme koo xamante ne bu ñu àndeek moom dinañ defar taseet defar Sénégal yëpp yaakaar naa ni loolu ku xool li président Macky Sall di def ci Sénégal surtout ñun la monde rural la jeunesse et les femmes lu président yëkkatee jëmee ko monde rural donc la ma leen waxoon yaakaar naa ni teeñ bi gis ngeen ko yan bi nag dikkagul li ñuy ñaan rek population yëpp yi nekk ci Sénégal ñu xam ni que président Macky Sall nit la koo xamante ni benn kàddu la su xësee wax da koy def lu mu wax dina ko def et dama bëgg ngeen xam ni moom c'est un homme de droit conseil constitutionnel mënul décider nii lii mooy am qui est au-dessus mu ni day def leneen donc loolu moo waral yéen population yi dama bëgg ngeen xam ni président Macky Sall lu mu sa wax rek da koy def ca ci la nekk ba léegi mais respecter droit moo tax bi conseil constitutionnel waxee ni lii moo mën a nekk moom it daf leen a topp ci loolu maanaam dañu weñ loxoom mais mu muñ xam ni que moom euh, le conseil constitutionnel mooy charte bi nga xamante ni mooy saytu li nekk ci réew mi donc loolu moo tax ma leen di invité le soir du 20 mars yéen ñëpp population Tassette ngeen woote fi 100 pour cent oui yéen waa population arrondissement Notto ngeen woote oui le 20 mars. tout le département tout le département yéen maire yéen a ngi fi ngeen jàllale message bi xam ni président Macky Sall yéenewul lu dul lu baax ci Sénégal ñun de moo tax ñu takku ànd ak moom kenn mësuñoo xam ci ay politique ñun ñëpp dañoo takku actuellement pour jàppale ko parce que bu jógee di defar réew mi ñun dañ ci war a aussi participer loolu moo waral tey ñu guddi ak bëccëg ñu ngi topp ci ginnaawam mu jox ñi nag un excellent ministre boo xamante ni mu ngi wër Sénégal di tabax loo gis mu ngi ko mu ngi defar poste de santé yi di defal otel de ville yi di defal extension électrique liste bi mënuma ko bu ma fi toogoon damay fi wax a wax wax ba julli juma donc monsieur le ministre kontaan nañu trop toutes les populations de Tassette kontaan nañ ci yow Je vous remercie.